waaw dama am mbégte ñëw fi tey nga xam ne euh, kilifa yi université Ahmadou Hampâté Ba ñoo ma tànn pour ma nekk parrain seen promotion yi di war a génn nii euh, pour jël seen lijaasa euh, ma am ci mbégte lool te teewee ko ma fekkee fii ñu ay cérémonie bu bu bu rafet. boo xam ne ñoom ñoo ko organisé maa leen di ndokkeel euh, gis nañ ne nag université Amadou Hampâté ba mu ngi léegi vraiment euh, jël ki wàllam ci formation cadre fii ci Sénégal ak ci Afrique parce que lu ëpp fanweeru nationalité ñu ngi jàng fii ci ci université bi donc euh, loolu loolu dafay wane rek université sénégalaise du seulement université publique mais université privée aussi ñu ngi béy seen waar. may gërëm. Michel Claver Bayard encore une fois parce que moo waral lii yëpp euh, suñu pàpp la et euh, xale yi papa Bayard nañ koy woowee moom muy woowee xale yi mes enfants et il est en contact permanent avec euh, ses ses ses ses enfants mooy moom xale yi ñu moom nañu gën a miin que ñun ñi lu ñu soxla duñu jaar si kenn dem directement si moom dañ koy maamu di ko papo et il est là et son seul domaine acti d'activité c'est l'éducation xamul dara lu dul jàng ak jàngale et il fallait que l'université bien couronner euh, les autres euh, domaines qui sont l'élémentaire le, euh, le secondaire et bien entendu euh, le supérieur qui vient au point nommé avec euh, la création de l'université Amadou Hampâté-Bâ en 2006. sëkkër bi du lenn lu dul euh, man sama slogan mooy xàccandoo dóorandoo euh, idée yi may am dama koy partager ak nit ñi et ensemble ñu xool nan nañuy en fait réaliser les événements les activités lii ngeen gis fi nii du lenn lu dul xalaatu ñëpp xalaatu ñëpp mooy bàyyi ñu kenn y a l'implication de tout le monde te ñii di récipiendaire yi ñoom ñii dañ cee bokk dañuy wax seen xalaat wax ne nii ni ko bëggee donc secret université Amadou Hampâté Ba encore une fois mooy nekk ñëpp ay mag keneen et en famille. mën nañu léegi def euh, moom moom lay wax moom lay wax sànq. Euh, n'oubliez pas que. suñu papa dafa feebar et feebar bi maanaam feebar bu mag la et ba muy commencé magal euh, activité yi wala doole yi nekkul woon noonu donc euh, ba mu feebaree tëdd ñun doomam yi te bu ma naan ñun doomam yi du ñu sant Baye kese wax naa ko sànq ñun ñëpp on s'est dit que le défi c'est de faire ce que papa faisait et plus donc moo tax ñu ñëw def euh, graduation bi premier graduation bi ñoo ngi ko defee à l'enceinte de l'université am Hampâté Bâ mais bii étudiants yi et bien entendu ñoo bëgg délocaliser kii bi am nañ place buñ ko mun a defee mais ñu ne non non dañoo bëgg feneen fu dul université Amadou Hampâté Bâ et macha allah euh, fête bi moom macha allah réussir na li ma leen wax euh, si côté boobu recteur bi wax na ko ministre bi waxaan na ko une université Amadou Hampâté ba dafa am fanweer ak benn nationalité yi fi jàng te buñ nee fanweer ak benn nationalité yi fi jàng daanaka toute l'Afrique est représentée et bu fekkee Afrique bi yëpp moo représenté wu au sein de l'université ça veut dire que bien entendu il doit avoir ay euh, ay autorité yuy représenté dëkk yooyu di indi seen seen ndongo daara ñu ñëw di jàng si au niveau donc de l'université Amadou Hampâté Bâ et formé nañ si fii ñu toll nii plus de 33 000 étudiants donc 33 000 étudiants diversifiés dans l'Afrique et même à l'Europe en Amérique donc vraiment macha allah euh, ñooy màgg nànk-nànk bëgg dem si kaw a kaw bëgg honorer bien entendu euh, l'éducation e ici au Sénégal triompher ba démb ba démb étudiant yi ñooy ñëw man ba may jógee université bi ñooy wan si trois cent cinq mais ba ma laajte neneen ma am na ñeneen ñu ñëw ba si suba ci ni parce que dañ ko médiatiser ñu nekkoon ci région yi war a ñu nekk ci ay activités professionnelles dañu ne non dañuy ñëw ba si suba si nii am na ñu ñëw sol toge ne dañuy ñëw kon étudiants yi si boppam ñoom ñoo bëggal seen bopp université en Hampâté ba ñëw fekk suñu pour ñu jox leen seen euh, seen raay merci beaucoup. faculté yi. faculté sànq waxoon naa ko ñeent faculté nañu am euh, ñeent faculté faculté médecine faculté sciences juridiques. faculté gestion ak faculté sciences éthiques donc li ma bëggoon bokk ak yéen c' est que Ampateba université excellence la Ampateba il y a quatre facultés sciences technologie santé médecine droit loo leen bëgg a def ñëw leen jàng si Ampaté c' l' excellence dans la polyvalence c' est le savoir dans l'enracinement et dans l'ouverture Ampateba tamit da lay dimbale ci monde professionnel bi da ay stage ou ci am stage et cetera li ma bëggoon wax li may li ma yi mooy ne jamais se décourager bu leen ah bu leen mës a bàyyi jàng bu leen mës curieux ndax jàng dëkk bi boo jàngee da ngay tekki waaw ah, je sais pas quoi dire d'autre ah. donc je vous remercie parce que franchement c'était quelque chose d'important empaté ba mu ñu teral ni cérémonie graduation bi il y en avait pas eu depuis des années et franchement c'était une bonne occasion pour nous ñëpp étudiants yi dañ ci kontaan vraiment waaw ni maa ngi master di alhamdulilah maa ngi master de juriste et conseil d'entreprise donc année bi incha allah ci laay pare donc voilà c'était mon parcours à Empaté je suis présidente du club OHADA donc Empaté franchement excellence on nous encourage vraiment à aller au plus loin à aller vraiment faire le maximum de nos capacités ku bëgg a jàng si rek université ñëwal Empaté maa ngi lay xaar. <laughs>